wala ma la jël lenn bëri laa wax man foo jaar di nga tapis suuf si yow foo jaar di nga tapis suuf si da nga koy sotti ko bëri ñëwaat tëddaat mu lay neex mu lay naqari fooy bañ a jaar fu ne jóg dë jeex jàmm dina la jaarale borom soow mi borom soow mi ngay wax naa doole ah jeex amoo doole foo yow looy fooy bañ fi naa la fa jaar la boo jóg dë xale yi sa xale yi am nga doole sa xale yi leer jeex bi occupé la jëlal lépp maay puus maay daan jeex moo ngay daanu maay puus maay daan maay puus maay daan jeex mu la jàpp si la fooy bañ ma jaarale fooy bañ fi ne dinaa la fa jaarale fooy bañ fi ne dinaa la fa jaarale jeex munoo bëre amoo internet yi di leen nuyu bu baax di leen di leen bëggee ñu suivre sur Kewel Info du nuyu kilifa diine yeeg kilifa aada du nuyu suma sëriñ notre responsable moral daaytu Moussa Chidine Moussa Chidate du nuyu kilifa diine yëpp tey dañ ñu ngi fii si Pikine seet champion gannaaw ba mu bëree démb combat ak ki nga xamante ne moom mooy Boucher Ketchup moom Ziza mu nekkoon combat boo xamante ne nag ñëpp ñëpp combat boobu moo leen moo moo taxaw ñu ñëw di seetaan si ñu gis ni combat bari na ay polemique bari na lépp mais Ziza ñu ngi koy félicité bu baax a baax a baax a baax ndax quoi qu'on puisse dire il a su tenir mu gagné par an par nombre moom la gagné Boucher Ketchup Boucher Ketchup nag ñu ngi koy encouragé wax dëgg yàlla Boucher nag combat bi nag wax dëgg yàlla <laughs> li nga wax yëpp xam naa cat moo la topp mais daal de toute façon ñu ngi lay encouragé bu baax a baax a baax dañuy bàyyi ki nga xam te ne moom mooy Ziza mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi maa ngi lay nuyu Ziza. waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur bu baax a baax ñi ngi santaat ñaari waajur di leen ñaanal yàlla wér gu yaram gudd fan di sant sama sëriñ sëñ Abdou Lahad ambassadeur sëñ Abdou Lahad mu sëñ Fallou di ko santaat bu baax a baax sëñ Glass Mbacke sëñ Aziz Abo Cheikh Modou Kara Cheikh Makumba Fall di sant sama mbokk yi ak sama xarit yi ñu jàppoon ci combat bi yëpp ñu ngi leen di sant di santaat tamit waa koñ di baaluwaat ñëpp ak mhm. Ziza sa combat ak Boucher ñu gis ni combat bi audio bi fo la woon démb nañ dégg nañ ba ciy dégg sax kat yéen ñaar am na lu la boucher wax wax nga ko pour ngeen combine quoi mais après ñu dem ba benn instant bi dayo bi am am weesu foo xamante ni kenn kenn kenn nantaam ko ci coow ci lépp am lu bëree bëri lu ci laxasu sa combat ak boucher. non billaay walaay fan ma jàpp bu pour nga dégg dégg rek combat bu ne bëri naaw mais combat bi amee nii coow mosuma kaa gis démb fii départ bi gis na barrière yi ngay gis ni comment dañ ciy def xaalis ñun parce que ñu dama doon dégg ay nit ne Ziza day commune ak Boucher dama bëgg a tukki noonu non Boucher mënu yorul sama tukki man pour daan ko moom moo taxoon a jug mais làmb dafa am ñaari ci am booy génn dangay ngay génnaale sa victoire mais làmb ji Boucher daa yàq làmb ji ci lépp benn làmb ji dafa am ampleur coow li bëri Boucher ne du bëre da ngay dem sax sa nit mu war laa jàppale mu ne ah combat bi sa waay na du bëre. ay Mara ñu ne sa combat bi dina ama ak du xam nga détail yooyu ba pare après sénégalais da dem sax ñoom après dañoo mujj dem à la fin sax ba yërëm buuse parce que man li ma daj moom daju ko xam nga dañoo dem ba mujj ko yërëm man damay xool après affaire yi dem sax ba dama dem sax ba découragé barke sëñ Abdou Lahad damaa dem ba découragé parce que laa mi waroon mën a def leneen quoi tax moom tamit en plus ñëwul pour bëree dafa ñëw ne du ma daanu man tamit su ma attaqué maay dóor man maay dóor gauche doo droite. mais dañ ñëw ci bi. Mhm. dañ ñëw ci combat bi mais préparation combat Boucher bi ñu metti na. Mhm. dégg nga ci lu ne dégg nañ Boucher mu ne yor na say audio. Mhm. dégg nañ ay yeneen mu yor sa carte d'identité xamul ñu dem ba benn instant boo am te ni Ziza dem ba am pression ci combat bi lan moo xew lan parce que dafa benn instant bay exprimer mu sax xol ngay waxee bay tiir tuur ay xewul. non parce que euh, combat bi du mu lu nekk fi ma dëkk Pikine. dégg naa ay nit naa warul jël combat bi xam nga. da ngay dégg am nañu dëkk bi ñoo xam naan Ziza warul jël combat risque ñu naan buusee ko mën xam nga détail bu nekk da nga koy dégg xam nga làmb moom dafa baaxoo wax ngay gis gars yi di wax seen i détail ñii di wax lii man nag démb pour jàpp buuse pour bëreeloo ko pour bëree man li ma entraîné bëreeloo ko benn heure bi mais damay génn ba suñu ko sam papa woo ma ba mu ñëw ne ma lii laa bëgg nga bëree sam papa woo ma ba mu ñëw lii laa bëgg nga def dama bëgg boo demee nga ànd ak dal il faut nga ànd ak dal te dal boobu tamit booy boo koy def il faut nga ànd ak dal mais làmb ji man saaga nañ ma si wax nañ ma si ñaaw wax nañ ma si. mais waaw njambaan saaga na ma si wax na ma lu ne mais xam nga yàlla moom boo ko ñaanal may la ko victoire victoire la. mais nag yow nag da ngaa gaaw parce que gis nañu dem ba benn instant mel ni kii def laa am nag euh, boucher. ndax dem benn instant xol nga doon doxee dem nañ benn instant ñu bari ñu ne Ziza li mu def am na lu mu def loo xam waru ko woon def dem na ba indi papaam di wane naan kii mooy sam papa moo a jur lan moo tax nga def loolu. non parce que xam nga ñamaan bu loo kiiyee parce que Bousse tey mu ngi may naan yow yaa njëkk a saaga ñamaan man ko barki sëñ Abdoulahat ni laa ko waxee man ko man du ma tooñ nit du ma tooñ ñamaan dafa man ko booy yow dimbali ma yow lii wala rek mu commencé saaga parce que maa moom bu ndeyee du ma saa parce que làmb ji dafa dem ay sa papa juru la affaire man du may tëdd ba guddi nelaw billaahi wallaahi non wax jooju moo tax may def okom mu génn parce que man nëbbatuuma sam papa sam papa ko nëbb ñun moo ma jur fi ma war a juree lu tax may nëbb non il faut ma démentir parce que neexul tamit ci xol ba ma ñaata douze ans de carrière ba léegi musuma am problème ak kenn lamb yi yor rek ma ci dégg lu ne mais loolu dafa garaaw. ñoom am nga ci pression de. am naa ci pression moom ku dee ak sa bàmmeel parce que su ma yeewoo fajar di jug entraînement gis sama yaay su may dem sama baab na ma góorgóorlu mais loolu loolu la pression bu njëkk la. xam ma démb mu mel ne ay nit naan Ziza waru woon bëree ñeeg bëree woon bëree woon eh man li ma def maa xam. waaw mais beneen bi tamit dañuy dugg ci li xam mooy ci combat bi après ba dañuy ñëw ci boucher ko ci sorte bi mu def. Mhm. ñu gis ci combat bi Boucher dégg nañ mu def déclaration ne du bëri. Mhm. yow ba nga déggee ne Boucher du def combat loolu lan nga lan nga wax. du bëri non benn instant gëm naa wax benn instant góom wax nii la ñoom de parce que man encadrement bi rek entre encadrement bi rek laay gëm parce que bañ ko waxee laa gën a enterné loolu dafa yàq lu bëri déggoo ma Sénégalais yi ñëpp dañoo dem ba yërëm Boucher Sénégalais yi dañoo dem ba yërëm Boucher. non parce que loolu laa dégg dafa blessé. pourtant dafa blessé mais blessé ba pare di fecc ñoo xam nga kenn comprendre ko moom moom dafa indi ay argument yoo xam ne nii ci làmb ba pare xelu mag la doon doxee parce que lu bëri da ko da dañ ko tojtal si biir làmb ji parce que Boucher. kon daa dëpp victoire sa victoire. dafa dafa def yu garaaw yu garaaw la def non man kay am naa victoire parce que yàlla moom man la àndal moom. mais li nga ko bëggee woon. mu ko amul moom wax dëgg yàlla. mais mystiquement Boucher daf la jàpp. non non ma mais benn instant ci biir làmb làmb la jàppante naa moom ba ma ko jàppee loolu sama mënin la. mais sama loxo fii nii lii nii. dafa jékki rek karamp lii nii ak lii karamp karamp bu garaaw sax. waaw que sa sa loxo yi. pour deret génn. waaw waaw dañ dañ ma dañ ma dagg sax. mais gars yi parfois ñoom duñ comprendre quoi lam parce que mënu maa dégg comme boo bougé pois lourd la même bu internet ñax internet boo attaqué nit dem ba damay attaqué mu def ñaari pas recul pour jël élan foofu damay taxaw. mais moom nee na. Hmm. yow da nga entraîné combat bi yëpp ba mu taxawee. Hmm. moom trois jours la entraîné. nee na yow yaa waroon a bëri yaa waroon def lépp nee moom wax dëgg yàlla da nga ko rusoon nee na yow amoo fit dafa <laughs> du du anière comme yow ni nga ko defee sama mbokk nga nag quoi Mamadou Camara tapet du anière man démb ma def naa lu ne mais yow yow lan nga def yow yow yaa doon dem nag la ma tax at joxe victoire man bu ma la dóoree du daal foofu boo taxoon làmb ji jeex na. parce ñu bari ñu naan Ziza dafa waroon a jàpp Boucher daan ko parce mënul daan boucher ndax ni muy bëree pression daa am ci moom ba pare da doon calcul ñu calcul dafa ëpp dafa moom bu ñu ko waxee parce que man moom c'est la première fois ma ñëw a am sam papa xam nga sam papa tamit la xam nga te tamit sama coach waa écrit Ramadan li ñu ma wax def tamit. léegi pression bi nan daan. non tout sauf boucher daan ma en plus xam nga ak wax yi détails yi xam nga da ngay génn sax xale bu ndaw xoolale combat bi jeex na xoolu nit ñi combat bi jeex na xoolal nit ñi ba léegi ñu ngi gën a ñëw non mais mais mais mais man yàlla man man ba may am buzz man ba may daan mandala non combat bi xam nga parce que dañoo wax man mi dem naa Touba ba ma demee Touba wàcc ay nit wañ koñ ma ne ma Ziza yow sa combat bu ma dem ba Gambie ay nit ne ma noo Ziza nii xam nga ma dem ba kii Koungheul ay nit ne ma waa yow Ziza sa combat beeg bu ma xam ne non lii nii mooy loolu quoi xam nga yaa ngi dégg ma la non mënu ma xaa parce que taxul ngemb. mais tamit lan moo tax defoo say euh, mënin kon ni nga daan def attaqué ko mais gis nañu da nga am pression pression calcul bi bëree bëri bëri mel ni kon kon kooku du Ziza. non dëgg yàlla Fatma Dia man moom lu may sandaat mooy à 100 pour cent bi ñenn ñi dinaa leen baalu àq mais il faut que ñu comprendre ni ñun dañoo am ay famille dañoo am encadrement man maa nekk si mbër boo xam ne ni dama am encadrement ba pare am ay nit yuy sonn ci man ñoom parfois li ñuy wax dama koy dégg. xam nga kaw ba may bëree Gorel damaa dem jël risque jël ko mu dóor ma ma anyeer jàpp ko daan ko xam nga yaa déglu ma la ñëpp mun nañ maa daan sëf buuse. kon bu la da ngay bàyyi. non bu ma daanoon waay loolu waay loolu lu ne xaj na si depuis trois mois booy di fanaan ci koñ bi koñ bi waay mel noo xam may dem di asaaloo sama combat. bu noo daanoon. non non non loolu xalaatuma ko. kenn du wax dara sama papa ak sama yaay mais yeneen gars yi nag ñoom ñuy wax ñoom la concerné de. mais man am na ñuy wax naan non warul def lii man li ngeen wax noonu ko. man li wax Pikine lañ dëkk. mun nañ dëkk Pikine mun na xam nga gars yi moom fu ne la ñuy kiiwee bu dem benn gaan woo na ma ne ma non gars yi que kenn mënu leen tey wax parce que ñoom. waaw ak mbër mu entraîné yow da sa bopp nag. waaw mais xam nga tamit man lépp lu lu am rek damay sant yàlla parce que boo ma ñëwee sama yaay kontaan na sama papa kontaan na parce que parce que tey jii nii fii nii Boucher am na ñu ko may un million ñun est-ce ñun am na ko ñu may un million. préparé nañ suñu combat benn autorité rek moo yëg xaalis jox ñu muy Isaaxa amul benn autorité bu fiy jàpp xam nga te ñun suñu génération mbëri ndaw yi li ñuy dund dafa métti bu lu woon booy génne bolo gi di jaay ba am du mat benn six cent mille benn sept cent mille. xam nga ak suñu waa koñ yi ñëw cotiser affaire yooyu noonu waaye dem nañ ba benn instant dañoo am mi sax génnee sarax mais lam dafa ñaata mois ma koy préparé. mais ba nga tiito ak sa idole sa xarit. non foofu moom tiitu ma non non non tiitu ma parce que xam nga tey man Balla Gaye moom référence la parce que Balla Gaye lu mu am na droit faral boucher mais nu ñu war a mel maam moom bu ñu seggee dañuy kii parce que sama gars maa ngi koy. waay la sant sama waa koy naan Balla Gaye sax ma ko jàppee mu jeex parce que ñoom yëpp samay waay muy Modou Lo ñoom ñëpp samay waay la parce que suñuy. non idole la parce que bu may dugg ci làmb si moom boo dee seet islam salaare boo dee seet làmb su duggee damay jàpp rek damay jàpp rek dem parce que ba may njëkk a dajeeg mu échange bi sama la jàpp ne ma yow da nga moom di ëmmal seen ak ñoom ñoom suñu wax naa leen kenn ku nekk lu nekk ay ñoom Balla Gaye non woo goo mais damay dem gàllem. non damay dem gàllem seeti ji ko oh, comme parce tooñ naa ko yow sax su ma la jàppee mu jeex parce que tooñ waaw loolu rek tooñ la xam nga àdduna moo demee noonu àdduna da ngay wax ak ñi mais après lépp day jeex xam nga yaa ngi déglu ma la. mais heure bu Boussa ñëwee ndax dégg naa dem nga benn instant nga yaakaar ne Boussa sax du ñëw ci làmb ji. non toj toj toj tojal lu bëri Boussa ay tojal rek la doon def. kon daal tojal. non tojal xamal la ba muy ñëw takkul ngem bu zone bi. Ah, par yow ngem ngem bu zone bi nga doon xaaraat. làmb lu ci nekk làmb ay teetal la rek. lu ne teetal nañ ñu ko ñun ba dem ñun xam nañ ñu ngi yóbbaale victoire moom ku xool nu ñu génnee yëpp ñu ngi yóbbaale mais làmb ji donc lu bëri di say kii daal waaw parce que làmm làmm moyen da am solo quoi mais tamit yàlla ànd naa ñun tamit ànd naa ñun. communication am sotti yu def ndax nee na jox na la tànk bi nan la am am. non non loolu da ngay da ngay rek nag parce que si biir non non biir làmb ji dama daw attaqué ma ne ko taxawal mu ne ma jëlal tànk ma ne ko fii ak fii nan nga fiy songee fan nga fi songee ah, non loolu ma ne ko fii nii kenn fi song ma ko da ngay taxaw ñu beeraay ba ma ko maa ngi ñëw kay taxawal non foofu bu fekkee damay mu ñëw di fay foofu làmb ji day neex comme ba mu ko dooree mu kiiram ma daw jàpp ko foofu làmb ji day neex mais am xam nga lamb day toll fa nga xam ne ni moom taxawul benn yoon moom li mu bëggoon rek mooy du ma daanu rek def ko rek mu jeex. mais Boucher nag dafa contact ak Thiatou Daouda bu contact bu wóor. Thiatou Daouda sax bu nu bu bu doon arène la maa ngi moom comme démb mu bañ a ñëw moom mu ñëw kon làmb ji day jeex parce que daa mën bëre taman damay bëre. ñeme nga jàkkaarloog Thiatou Daouda Fall bu doon maa ngi moom ñooy bëre. Ah. barki yaara suulu laay làmb ji day jeex man yow fan ma jàpp man damaa mën a jàpp man damaa mën a jàpp. mais bi nag ñu bari dañ ne eh, Ziza joxuñu style lu bëri eh, joueur lay jox gars yi parfois da ngay dégg di ko ñu ne est-ce que réellement Ziza mbër la ndax style bi style bi joueur la. waaw mais tamit man dama dul jël dara maa ngi am kattan maa ngi am kattan fu mu toll nii sama génération ñi si nekkoon xaaj bi yëpp daw nañ man maa fi des ay Alioune Seye Junior parce que ñoo bokkandoo même jour ba muy bëreeg ay ñoom Babacar Sanu man may bëreeg Lassander xam nga Alioune Seye Junior ñun benn génération la. ba gisoo style bi ñu yor man style bi mu yor mi ngi gën koo ne parce que xam nga démb ba muy bëreeg Siteu bu ba mu duggee ci digg géew gi noonu ba taxaw maa ngi naan gars yi ma ne ko kii daa am fu ñu daje quoi kii tey day am na parce que man mi sama adversaire la mm. mais yàlla xam na ne ak yonent bi noo yéene naa ko parce que lamb day tol foo xam ñoom dañ leen soxla ci wàllu lamb xam nga muy mo Alioune Seye Junior ñooñu dañoo bokk ci lamb Siteu bu Ngor papa booy jinne ñooñu dañoo surtout papa xam nga papa tey jii ngay am defet di gën a di gën a ñëw loolu dafa baax day am defet di gën am supporter loolu yàlla la mbiru yàlla la dañ ko ko war a nangul quoi mais man benn affaire rek laa koy gën a dolli quoi mooy Papa góor góorul barke Seydina Mohamed da ngay góorgóorlu parce que combat bi daj na si ay coono parce que daje nañ yàlla na ko suñu borom defal jàmm parce que ñun ñëpp samay adversaire yàlla na borom defal jàmm parce que nit doo soxor tamit quoi. mais gars yi baay bàyyi parfois bu nit amee rek ñu bëgg jël jabar di ko ci teg quoi non loolu baaxul loolu da yàq suñu image. parce que yow non bi bu bëree daanu sax ñu giñ ko jabar. waaw billaahi wallaahi laaj mais man mais mais man moom saa yi <laughs> am naa sama caractère bu doy ni màggal Tuuba boo xam ne nii gaan yii dama am sama fulaak fayda man moom bu sax sonn man kii mën naa ñëw wax ma mais ay me ba ci Pikine bii ma dëkk de parce que damay romb entraînement mu dem. dem sama heure su ma soxlaa dara génnal sama bopp mais comme ay combat ku nekk ñëw di kii nii na woon sama caractère laa chéré parce que gars yi ñuy ñëw ci yow naan la noo néeg ne te fekk ñoom ñëpp ay naa fekk lañ gëmuñu ko ñun Pikine bii rek yow dégg nga buuse lu ne la doon wax ay sama yo am na ñu lay jaay même am na suñu sarax yoo xam ne sax dañ leen ko wax xam nga yooyu yëpp dégg na mais lu waay mënul ci nit man yàlla rek laa fi laa yaakaar yaakaar bu ne suba suba yaay ngi def ngeen ko teewul drapeau baa ngi ne man la yàlla may ndam waaw mi ngi noonu mais xoolu buuse mi ngi mel ni moo daan <laughs> ah. <laughs> fu ne mi ngi fay dem ah. mi ngi naan sax mi ngi ñëw léegi seet si maire bi parce que làmb la rek dañuy kaf di rey ah. parce que man mënu ma xaa def lu bon mooy lu ma wax Camara la sant ma sant Camara non deux cent pour cent Pikine di la ñaanal yàlla jàmm di la ñaan non man man ay deux cent pour cent yi cent pour cent yëpp ñun Pikine daal lañ jëkk ñu ngi leen di ñaanal yàlla jàmm. nga si sa bopp est-ce que si combat. non de non non non combat bi mu wax dëgg yàlla boo ñaa lañ dëgganteel moo ñu woo am benn xaalis bu ñu fekk papaam yëkkati jox ñu mais dew ma ci kenn na ko lii à part ñooñu sama copain yi ñoo fi ñëw ñoom ñoo ñoom soq soq moo ma woo fii ànd ak ñoom jarade parce que ñoo ñooy deux cent pour cent waaw ñoom ñoo fi ñëw ak ñoom Boyzil ñoom Dembis xam nga waaw ak ñoom Pakola ñoom Jacob Balde ñoom Babacar Balde ak Boyzil ak ñoom Jarami ak ñoom Abdou Gueye Malick Ndiaye 37 fi mais ñooñu su ma gisee rek doy na mi ngi mel ni ñoom Eumeu Sène ak ñoom kii parce que Eumeu Sène woo naa Lanjang Lanjang sax waaw Lanjang waaw exactement Lanjang am na xaalis bi ma envoyé tamit Lanjang parce que man ñooñu ñooñu ñëpp su man su may waay lañ xam nga Ama Balde am na conseil yu ma jotoon conseillé mais xam nga tey ji man damay soxla su may def open press ñoom ñëpp di ñëw comme ñoom bu ñu xewlee ñuy ñëw man loolu laa leen di xaw a voilà man man foofu rek laa leen di a meree parce que ñoom bu ñu amee seen bis ñun lañ leen di teewal suñuy def open press ñoom ñoom tam ñu ñëw gën ñoo dooleel parce que àdduna amul solo ñun ñëpp ñoo far parce que tey jii ñun mënuñu fee nekk ba dàq fee bëre ama seen mënuñu fee nekk nekk ba dàq bëre amaak boña ñun dañuy topp seen ginnaaw même bu dee ñun suñu général ñun dañuy topp seen ginnaaw rek di dem xam nga mais tamit di ñaanal waa Pikine ñëpp jàmm di sant non man maa naan di faal combat la maa ngi Nandi Fall Nandi Fall loolooy làmb ji man moom instant Nandi faal rek laa war a bëreel. moom nga soxla daal. non moom laa war a bëreel amul leneen Nandi Fall ñu ngi wax Nandi Fall am na ñu may naan yàgg njambaan seen combat dafa war a eh, mën a kooku. combat bu combat adduna. non combat bu non combat ñu ngi ciy wax nii mais xam nga ñambaat mooy loolu noonu man daal Nandi Fall daal na ñëw ñu bëree. moom laa gën a soxla moom laa gën mais di leen di leen sat tamit quoi parce que ba passé ñëw ba maa ngi moom ma mer ba dem ndax wax ju bëri ji yow suñu jigéen yow xam nga man ma dama toog parce que yow nekk nga journaliste boo xam ne ni am nga raq bi bëre xaw ma mag bi bëre mais yàlla xam ne ne ak du dama bëgg nit ñi di xam loolu mhm. yow da ngaa yemale man nekkul heure bi damay jël kam mais yow da ngaa yemale parce que sadax tey buy bëri amoo pression yaa ngi liggéey sa liggéey sa liggéey ngay def xoola man sëñ Modou ñaan dem si yàlla si su may tëgal dañ naan doomam la tey sëñ Modou Niang bu joxee sama adversaire xaalis man lay mujjee jox man lay mujjee jox maa ngi sant kii sama benn copain bu nekk Italie Ibou Nagoro ak moor Thiès maa ngi leen di sant bu baax a baax waa Italie waa italiano yi jàpp nañ ci Ibou Nagoro et Ibou Nagoro moog Bousse ñoo war a bëre quoi am na benn gars bu nekk Italie bi la war a tegu quoi maa ngi sant jara xam nga di sant sama yaay Nafi Diagne di ko santaat parce que di moom laa gën a bëreel ak sama mafia bi ñëpp maa ngi leen di sant ak sama papa ñoom mbuub père yëpp ak suñu waa koñ ñoom zanu maa ngi sant ñëpp di sant spécial Baye Ndiogu suma xarit suma doomu ndey ak Balla su woon moom dina ñaaw trop mais maa ngi bégg ñëpp di baaluwaat ñëpp ak di baaluwaat ñëpp ak bu dee combat bi def nañ si lu si war a ñu ngi baalu ñëpp ak di sant waa télé bees yi ñoom Malick Ndiaye ñoom Abdou Gueye ñëpp maa ngi sant di sant Jarami moom na ko yi jël na quoi na ko gars yi jël waa na ko gars yi jël. indi drapeau bi Ziza. Eh booy ana booy Eh, maa ngi sant tamit suñu benn kilifa bu mag bu tudd Baye Sall borom Risatol ñu ngi koy sant bu baax di sant tamit Paris maa ngi sant suñu benn grand boo xam pari moo nekk Sébi Xutaan jàpp nañ ci bu baax a baax waaw ñooñu moom foog ma leen di sant quoi bu baax a baax di santaat ñëpp. waaw drapeau baa ngi. drapeau baa ngi ak Ziza. Boucher de daa mel ni kay est daanu. ah na waar de. daw Boucher de daa mel ni moo daan. mais gànc. acca drapeau baa ngi nii drapeau madame dara sama marraine suma xarit ma ngi nii boucher ketchup Ziza drapeau bi rek Ziza moo ko jël. nga ni. boucher daa mel ni moo daan. nekk ci di daw di kër te drapeau bàyyi nii drapeau bi kër Camara Camara la faame waaw bu la neexee dawal zibilé xam nga tax ngay zibilé ah. parce que Camara nga sant ma sant Camara ah. garaawul bu la neexee zibilé. ok drapeau bàyyi noonu ah. jox gaa yëpp dig daje prochainement incha allah di wax nañu gaa yëpp xaar Kewel Info mi ngi ñëw dal seen kaw. suuf si. la ci lenn bëri laa la wax man foo jaar di nga tax suuf si yow foo jaar di nga tax suuf si da nga koy sotteeku bëri ñëwaat tëddaat mu lay neex mu la fa jaarale borom soow fooy bañ fi naa la fa jaar la fooy bañ ma dinaa la fa jaarale fooy bañ fi dinaa la fa jaarale jeex mënoo bëre amoo doole. jëlal lépp mën naa bëre aw ma doole mais man damaa daan. daan